mu ne ko déedéet màggal gi de waajuma ko mu ne tekk mel na ko jaaxle mu ne ko man de bis benn ci laay waaj te li may wax boobu man maa ngi toog daal ne ma am sëñ Badara ma ne ko ah moom kay kéemaan la mu ne ma màggal gi jër te waaj ñaan yàlla mu fekk la fi rek ko mat daane borom bis bi dafa manal boppam ci fànn yëpp kuy defar bis yi ñeneen ni daal ne bisu boppam taxul muy wax kon li mat da def rek mooy kenn ku nekk nàmmat yeesalaat sa pas-pas bu baax sa diggante ak sëriñ bi am yéene yi tamit te nangoo jëf yëkkat sa alal joxe ko ci yoonu yàlla te yàlla rek tax loolu day lu am solo loo xam ni boo déggee ñu ni murit tuubaali abdil muridin saadixin la moom bi xidmatin aw bi hubbin aw haddiyaatin loolu xaadimul xadim daf koy wax ni saa boo xëyee du caagee ni nee na sëriñ bi rek moom nga war a jox donte benn bu dërëm la wala juróomi dërëm wala dara nee na war ngaa seet sax koo xam ne danga koy jox muy addi Sëñ Tuubaa koo ko jox rek te Sëñ Tuubaa tax nee na addi lay tudd te Sëriñ Saalihu Mbàkke moo wax ni addi kat Sëñ Tuubaa dafa wax ni dana fekk fu dara néewul woon mu def fa dara dana fekk fu dara nekk yi tamit mu baril ko waaye dana fekk lu bari mu barkeel ko kon yooyu yëpp boo déggee ñu di ko wax maanaam du dara lu dul rek xemmeem loo nit ki loolu ak soññ ko ci te mu xam mooy mooy lan bis yi nag nga xam ne moom la ñuy ma di ko defal sëriñ bi fii bokk ci bis yi nga xam ne dañ koy waajale safar gi li ñu doon wax at mu jot rek loolu la ñu soññewaat suñ biir bis bi dañ cee yegg ci jàmm ak salaam weesu ko ci jàmm ak salaam am ci lu kawe suñ mu dàq nam daan ndax kan koy defal moo tax li am solo mooy kenn ku nekk rek ñaan yàlla mu boole la ci ñi nga xam ne ñooy tax bis boobu am mu jaare ko ci ñoom kon nañu góor góorgóorluwaat bu baax a baax a baax ndax daara ji mi ngi bëgg a yàgg tuuti am nañ tamit ay résultats yoo xam ni rusuñu koo génne ci kanamu sëriñ bi mbooloo Majmahun Nurayni bi mu sasoo ak ndega ni ñaar fukki at yi war naa mat ndax 2004 lanu sëriñ Saalihu Mbàkke tudde daara maj Majmahun Nurayni fi fawaa'idi daarayni maa ngi toog ci kanamam mu wax ci làmmiñam bu teddoo daal ni seen mbooloo mi de na ngeen xam ne bokk naa ak tey maa ngi seen biir kon loolu bëgg lu nu neex taxul sëriñ bi dina ko wax jàpp ne bu nu ko waxul danaan bàyyi wala ñu yox yox yi taxul mu dina ko wax la tax mu dina ko wax moom xam na ko waaye ñun bu nu xamul lépp it waxtu wu nekk ñu ngi ci am ak sant ci biir goo xam ni xam nañ ne lam ñu waxoon maanaam mi ngi mi ngi mi ngi ak ñun ba bu baax a baax a baax li ci fer iji ci mbooloo mi kenn xamul nu mu toll ñoo xam ne ci daara ji lañ ko defee ñenn ñi nga xam ne daara ji ñoo ñoo ñoo ñoo leen taxaw woon ngir ñu am soxna dem waxtaane defal leen seen lépp jël soxna indi ko ci biir kër gi ba tey ñoo ñi seenu njaboot bokk ci ñu yor daara ji di ko ci yët di ko doxal te mosuñoo génn sëriñ bi mosuñoo génn lislaam ñooñu kon daara ji am na am na fu muy dox bu baax kuréel gii ñu ci jàng mën nañ ni bu dul ñëppit bu ndee ñaar fukk fukk yi ak juróom-ñett yëpp fii lañu xamee lan moo dem jàng lii mooy daaj seen siise lii mooy daaj seen mayëb ba tey tax tey fi nu ci yegg yegg ko fa ñoom sey naa Seydina Aline Faye ngi nii toog ki daara ji fi la ñu jaar ba génn ba wéy ba tax na tey jii fu ñu mën a nekkit ñoom dañuy tiitaroo daara ji waaye daara ji dafa bokk ci ñoom ñi leen di tiitaroo ndax kon ci jox micro macha allah mu man lu mel ni lii nuy wax wala ñu dàq ñu ko fuuf ak ñeneen ak ñeneen dama ko ci cité rek ngir li ma jàkkaarloo ak moom kon li ma bëgg a wax rek mooy daara ji alhamdulilah ñi ngi am ak dox bu wér a lii nag yooyu suñu yëfi bopp la ñuy liggéeyal sëriñ bi mu dimbali jaraloon ci boppam lii nag ñun sëñ Tuubaa lañ koy defal te sëriñ Abdul Ahad Mbàkke daf ñoo waxoon wax ju leer wax ni gor yu njëkk yi koo ci masaana teral gor la wax nag ki nga xam ne moom as gor la dereti gor dafa nekk ci moom kooku dafa am lu koy yëngal bokkul ak ki nga xam ne loo wax ba daaneel rek ñu ne la gars yi dañuy aal rek wala loo wax ba ñu ne ah baax na wala nangam dañu ku leen mas teral dañ lay wax ni la ñun de li ñuy ñaan yàlla mooy fekke sa bés ba jaaj suñu bakkan te nee na gor yi daan wax loolu teraanga jën leen doon teral lu mu rëy rëy rëy teraanga jël Sëriñ Tubaa teral ñun asaka ji rek nee na moo ëpp doole loolu te bi nu ko Sëriñ Tubaa defalee ba noppi nag nee na ñun laaj ji suñu bakkan far suñu alal rek la ñu laaj te alal jee daf la cee garantie ni loo ko ci jox lu nekk dana ko ful na mu gën a baree mu mu delloo la ko boo bëggee nopp noppalu kon wala nga am loo bëgg di ko wut ñëwal wutee ko ci sëriñ bi rek moo gën a yomb ci lépp rawatina bisam bii sëñ Abdou Lahad tegaat ci wax ne lépp loo xam ne yor nga ko attan koo joxe ngir yàlla foo gestu gis ku la ko àttana jox te yàlla tax bu la àddiyee jafee jooy joxe maanaam fexeel ba yow boo yoree fukk fexeel ba joxe juróom ya di ko def àddiyi Sëñ Tuubaa bu yombee ci yow rek léegi léegi léegi lépp da daal di yomb ci yow waaye nee na lépp loo yor te àttana koo joxe ngir yàlla boo waroon àdduna la wax ba mu daj nee na doo gis ku la ko àttana jox te yàlla tax kon li ñu bëgg fàww dañ koy dañ koy liggéey ci sëriñ bi faw rek dañ ko dañ ko dañ koy jéem a liggéey sëriñ bi sëriñ bi waxoon na ne bëgg gi ma leen bëgg nee du leen jariñ dara waaye bëgg gi ngeen ma bëgg yéen moo leen di jariñ boo bëggee sëriñ bi dëgg ci ngay gëstoo lan mooy li sëriñ bi bëgg lan moo neex sëriñ bi ci ngay mën a joxe sa alal te yàlla tax moo tax xaadimul waxoon ñu ne kat yàlla na nu yàlla notal suñu bakkan ndax nee na ku notul sa bakkan doo mën a joxe sa alal te nee na bari waa na téeméer boo xam ni mi ngi sa loxo nga téye ko di ko korkoral bëgg beneen bu ko fekk ba mu mat ñaar téeméer nga def ci dara te nee na junne ngi taxaw fee boo xam ne téeméer bi dem moom mu ñëw la bëgg ku la dàq joxe la wax nee na moo lay ëpp wërsëg moo lay ëpp ay soppe moo lay gën a néew ay gàllankoor moo lay gën a néew maanaam tawati àdduna kon li ñuy soññee waxtu wu nekk ne nit ñi bàyyi xel ni soññee wuñ ko ngir bëgg ni dañoo bëgg a jaay nit ñi ngir joxe déedéet ku mu neex defal ni ñi nga xam ne ñenn ñu ci bari noonu lañ koy defee at mu jot bu ñëwee ñu sëgg naan maa ngi jéggul maa ngi jéggul ba bis ba ñëw ñu di ko seetaan ba mu kawee njortu bu déwénee tamit ñu àndaat ak loolu ca loolu am na ci jàmbaar yoo xam ne la ñuy jaayante di ko ci def man mii sama jëmmi bopp xam naa ne wóor na Seexu Xaadim biir na ma ne mënuñu ko mënuñu ko mooy am na fu mu xaj ci ñoom foo xam ne mën na faa dem waaye nag duñ ko ñàkk Serigne Saliou Mbacke daa wax ne man day du ma y du ma du ma yërëm kenn ci liggéey si Touba waaw ah, sëñ Moustapha Seydou Khadir moo ko wax moo ne Serigne Saliou moo ko wax ni ko du ma yéem kenn ci liggéey Serigne tubaa ak loo ci mën a dajeek loo ci mën a def daan ne ko ndax xam njariñ la ciy juddoo ak fay gële Serigne tubaa di fay daan ne ko man mi sax day la ma ca doon def bu démb doon tey danaa ko yokk tey noonu ma ko gisee ba léegi ñëw ci man mu ne ma lool loolu la ma biré ni képp kuy liggéey Serigne Touba fay googu dana ñëw ci yow sëñ Bay Jaxate nag dafa am lu mu waxoon nee na nag ah, yàlla mën na lu ne waaye du tax mu def lu ne sàkk na ab dëkk fu ne wutal ko yoon bu fa loo ci bëgg rek maanaam dëkk boo ci jëm rek kon jógal te soobu am ngiram sëriñ bi daa yor yëfam nga yor sa yëf nga làq sa yëf ba noppi nag di laaj yëfam yaa gën a dof na kon sa xel du ko xalam kon nit du nax boppam yow mi nga xam ne nag maanaam jamono jàpp na la ba mu wóor la ni yow tey jii boo xëyee ñaar téeméer yi nga xam ne moo nekk sa poos wóor na la ne fii ba suba wóoru la nga am beneen koo kenn laaju la ko jël ko nga def ko ci sa bopp waaye bu la wóoree ne téléphone boo bëgg képp tey ji buñ la ci waxoon fukki junni waxtu wii bala ngaa tëdd mën koo lijjanti joxe ko buñ la laaj sëñ Tuubaa te joxe woo ko boo nee óoma ko loolu du dëgg am nit du nax boppam bis bii ñuy defal sëriñ bi fii nag bërki démb laa ko mujj wax ma ne ñun Cheikh Abdoul Ahad Mbacke daf ñoo tuddoon bu yàgg te boobu ñun ñëwaguñu sëñ Abdoul Ahad 89 la fi génn la la génn jamono 89 ak léegi yaakaar naa fanweeri at ak ñett la suma juumut bari na ñoo xam ne tey jii seeni at yëggagu fa ci li ëpp ci mbooloo mi am ñoo xam buñ ko weesoo tuuti liñ ko weesalee yoon wi fu mu ko masa wootee fu ci nekk nit ñi ak ñi nga xam ne ñoom lu baax ñoru leen woon nañ ci daan wëralee nit ñi ak liñ daan dugal seen xel di leen ko ragalloo mu doon lu ñu xamul lii ñu am ñun tey nga xam ne fu ñu neex teg ko fa di ko wax ne léegi lañ ko am soxna Assa mii moom moom moom Cheikh Mamadou Amine Bara yal na yàlla dolli ay leer tasu ci barkeem wax na ma ne cantam gi nga xam ne moom la doon def fii di ko def bu ko daan def nee na ci am na ci yoo xam ne nee na cant gi bu weesoo eh, gee dañ leen fay fekk ñoom fa ñu nekk dàq leen ñu jóg nee na ñu nangu rajo yi jàpp jàngkat bi yóbbu ko tëj ko ci kaso bi neen loolu dund na ko fii ci ci ci kéem bi sunu mag ñi nekk fii wax nañ ni taxawal nañ bis boo xam ne def nañ ko fay baay laay Ñang mi ko waroon a def ba wax moom ban ni ginnaaw suba la am ay nit ñoo xam ne ñu ngi jaar ci ginnaaw di wax leneen ak leneen ba kàddu yi xaw coo ju yooloo bañ mujj ni leen fi ngeen ko bëggoon a def dootu leen ko fi defee ñu am leen naqari lool fexe ba jot baab laay ñang ni ko liñ la jotoon a jox muy avance def nañ ko addi sëñ Tuubaa jox nañ la ko dajalewaat la ca des lépp àndandoo dem ba ca sëriñ Abdul Ahad Mbàkke ñu leeral ko lépp jox ko ni ko lii mooy la desoon ci addi ji sëñ Blaat ni leen bu ngeen demee damaa bëgg bu leen ci bu leen ci nii bu leen ni ci ne toog leen te bisa ngi ñëw ca kanam tuuti di ngeen am ñoo xam ne danañ ko taxawal nuñ ko fa bëgg a taxawal bañ di ko ànd ak yéen te kenn dootu ci wax dara amut ñu ko fi taxawalagoon bis boo xam ne bu tol noonu la lu dul bii maj ma ko nóorani di taxawal kon ñun tawféexi Sëñ Tuubaa lañ am ngir dugg ci biir loola nañu xam li ñu am bu baax a baax a baax te doolee góor-góorlu waat jaayante bu baax a baax a baax ci liggéey bi ñi ci nekk li ci ay ndaw nañ ci gën a góorgóorlu léeg-léeg boo ci déggee ñu naan la amuñu ni ndax barki dem bi ñuy wax rek ku mel ni sëñ Moussa mi ñu ngi ko doon wax jafe-jafe lan la ñu am mooy buñu te yeggee ñan ñooy jëli yenn matériels yi di ko di ko indi bu ñu waxee ñu ne organisation bu nee organisation ñan la ñu ni ñii la mais dañ ciy sonn dañuy dem ba lott ci te ñëpp di ay ndaw loolu war nañ ko seetaan war nañoo seetaan loolu bu baax te góorgóorlu ci xanaa duñ ni ma dañoo bëgg sëñ Issa Sané dellu takk ndiggam sëñ góor lay takk ndigam Ibrahima Fall bu ko defee ñoom ñu dem di bale fee wëlbatiku jëli kii ñëw toog gone yi taxaw di xoole loolu amul fenn de yoonu murit bu amoon wàcc dañuy wax ni leen ñoom wàcc nañu lañ war a def def nañ ko ba formé ñoo xam ne mën nañ ko di ko taxawe ca loola te taxut nag ba léegi ni kenn ku tekk laxasaayam amu ci sëñ musaa Ndiaye ngi nii bu dee ci kuréel ga kenn mënu ko ci da ciy lu baax bu dee waañ waat bu fa nekk suba ba guddi moom moo fay nekk sëñ Ibrahima Fall ba ca suba ga ci midi 13h jëm 14h boo ko fekkee ngeneen ndaw ñi ñëpp moo fay toog du tëddi du du du wane ginnaaw soxna yi boo ci demee soxna nday rama mi ngi ne mën naa ko ci jël jox ko ci exemple ak njabootam ñoo fi nekk ñoo xam ne ñooy moroomu ñi fi nekk te bu dee addee ji mu ci ñuy njëkk a joxe ca lay bokk bu dee jaayante bi liggéey bi kenn mënu ko ca du daw du deltu gannaaw ba ni yëfi tolle fii sëñ Tuubaa nag mbiram amul tappale xam nga dañoo dafa am koo xam dafa ñëw sëñ bi ni ko mbàkke ñun de ñii nga xam ne yaa ngi def ci ñoom di leen seexal ak ñenn ñi nga di leen defal li ngay def ci ñoom fekk sëriñ bi daf leen wax ni leen wulli laa leen sant ci taalibe yi ku ci mokk rek ni ko man maay duy ñu ne ko dañoo bëggoon mbàkkee nga wax ñu li nga leen di defal ba kun ci wulleeti ba mu mokk suñu la gisul sax man ko cee def keroog la ñu wax ne sëriñ bi keroog dafa ne du ma ko jox doom duma ko jox seex du ma ko jox kenn maa koy teel sama bopp la sëriñ bi wax daan ne bu ma ko joxee bis dana ñëw ngeen jox ko ko yelloo wut wala ngeen ko ko yelloo kon li na ci yëf yi sëriñ bi moom mooy joxeel boppam te kenn mënu koo nax ci dara ku ne ci ñun kon na fa yéene nekk ab taalibe dëgg taalibe boo xam ne dara du ci rax lu dul fas yéene doon taalib Sëriñ Tuubaa buy sàkku ngërëmam kon nañu bàyyiwaat xel liggéey bi bu baax a baax a baax la ca jiitu ca lañ koy def ñetti million la ñuy wax ne moom moo koy def li ci ëpp bi ñu joxee suñu àddiyee mu dem leen leen di laaj ñaari junni kon bu nee la ñaari junni ci ñetti million war ngaa xam ne sa ñaari junni yooyu defarul bis bi boo ko bàyyee tamit du tee jàkk waaye boo nee su ma ko defee sama morom def ko ñëpp def ni man bis bi dana jàkk bu boobaa tamit bis bi dana mel na meloon gaaw a sonn itam wala gaaw a nang lu luñ wax nga jëm yooyu da nit dañ ciy naxaate dama ni tekki sa laxasaay dong bu ko matoon ñun Cheikh Ibrahima Fall kam doon liggéey mooy ku tedd ki Cheikhul Khadim bàyyi la ci Cheikh Mouhamadoul Moustapha mii fi nekk nii ndax woy juróom bu dul dara ñetti at la ko mage ci zahir ngasum raay bii sëñ Mourou Moustapha woote woon ñu di ko gas di ko gas diggante njaareem ak Touba dem na ba yegg ci ak juróom-ñaar fukki ak juróom yooyu mu am dugg ci biir kàmb gi laaj peel ñu jox ko muy tibb di sànni ne ah, doom baa yéen a ngi may gis ñu ne ko faal ñëpp a ngi lay gis mu ne waa damaa bëgg boo liggéey ngeen seede ma ci kanamu sëñ Touba ne bañ wootee bi bokk naa ci ko doon jëf waa kooku bu doon wàcc mënutoon a wàcc ci loolu mënutoon a yable ci loolu dafa wax ne liggéey bii ñu woote ngir sëñ Tuubaa koo taalibe yabal ko ca toog bu delsee mooy doon sa sëriñ nga doon taalibeem bu dee danga caa yabal sa doom nga toog bu delsee mooy doon sa baay nga doon doomam boo amee soxna bu ëllëg bu ñëwee nee na mooy doon sa borom kër yow yaay doon ndaw si woddu ngay def murit wërta yolomal pas-pasam wala wala ak laxsaayam bu tekki yomboon wala leneen wala jëf bañatee am Cheikh mun Muntaxa mais day toog di nangu addi yoonam bañ a nekk ci dara li muy def kenn ci ñun mënu toog rek te diw teewlu xasida yi deux heures de temps kuréel gi di jàng yëngu woo sopp woo jataay kenn ci ñun mënu ko te làq na juróom-ñeent fukki at ak nangam kon loolu lu ne moom la mu màggaale ko bu ñu nax suñu bopp képp ku la yombalal lu baax ku nekk moom moo la ko xañ kuy sonn ku nekk itam sonnoo ngir kenn sa bopp rek a tax ngay sonn te sëriñ bi damaa wax ba tàyyi nii fu nekk day jaar na fa nett li la mu fa def waaye ndakaaru la lañ dégg wala bok lima deggul man ci samay nop gisagun ko ñu bind ko ci mbindam ci li ci mën gis musuma dégg fenn fu mu ne bu ci sama xel deme ma bëgg fetal jihad lulu dul kep lako waxe kep waxee képp Cheikh Mamadou Muntaxa mi wax ni ko barki dem bi mu fi ñëwee daane seigne touba day bi muy tijji fii masaali ni ñetti fane dakaram yoy yooyu ni semaine bi nu def fi neena gatché na lool suuf si naqar mu amone ak tàng xol ak joy yu mu amone neena fi ne bekk nako ci li ñuy def ci baax da koo yelloo nag wax nekk ba ba saadi taxaw te ñun ñii dañoo wax ne ñun ñoo fi nekk sëriñ bi kon ñun ñoo ko war a def ñoo ko war a def kon nañu góorgóorluwaat bu baax a baax a baax nañu góorgóorluwaat bu baax a baax a baax nangoo làmb suñuy poos joxe addi yi suñ tubaa ngir bisam bi jag ndax dana jag moom lan daan def da koy raw waaye du deltu ginnaaw waxuma laa nag du nekk moom loolu moom amuñu sax xel ñaaram moom ku nekk nag dañuy ñaan yàlla nga bokk ca soxna yi ñoom jërë ngeen jëf ñoom ay jàmbaar lañ ci yoo xam ne ziar bi taxaw nañ ci taxawin woo xam ni kawe na njort lool te fi nekk nii tamit ñu ngi ci. te ba naan jigéen ñi man góor ñi loolu dara jëru ko ci àdduna ñoom nañu doolee góorgóorluwaat fedd liwaat seen laxasaay xam ne ñoom nañ ko doon defee rek ba nëga ni noonu noonu yi tamit noonu rek la war a dem ñi ci yor kii bi sax ni ñuy dundee bis bi ak niñ koy waxee ni ñu koy waxtaanee ak di ko message ante di ko doxante seen biir ak di ko wax sax mën nañ ne ñun fekkuñu ca loola te loola du yoon. murit bi waxtu wu nekk jàppal ni man amaguma dara demaguma fenn meluguma nenn waaye saa booy jàppee ni nangam ak nangam rek demagoo fenn kon yu bari yu ñuy nettali ñun suñ koy wax rek maanaam dañ tey jublu ñu sant ci yàlla bu baax ci lim ñu defal waaye nag war ñoo yóbbee jom yi tamit ñu fedd suñu laxasaay baax a baax. kon nañu doolee góorgóorluwaat bu baax a baax a baax maa ngi soññi bokki taalibe yépp kenn ku ci nekk naan fa di taxaw man waxoon naa ko ku ci bëgg bokk ci loolu ba bëgg naa nga nga jot ma ndax am na ñu sama xel daj danaa leen woowal sama bopp waxal leen ko ñu teggil organisation lenn li gannaaw ñoo nga ca baas yi ñu ngi ci chaise yi ñu ngi ci defar fii ak leneen lu jëm ci waa cuisine nga xam ne juróomi nit ñu ngi ci am wala ñeenti nit ñu dëgër jaayanteeg Sëñ Tuubaa pour nay fee koy jëlee mbanay fee ngeen koy jëlee bool yi fële ñu jël ko andi teg bu ñu paree ñu defaat ko sareet yóbbuwaat ko mbooloo mu toll nii bu ca ñu mënta jaayante loolu man koo def te Sëñ Tuubaa tax war nañ ci am lu baree bari loo xam ne ci seetaan la balaa ñu tey yegg nag ma di ko sas ñoom sëñ Issa Sane ñi ñoom sëñ góor lay ñu di leen seen ci kaw loolu moom du taar ci ñun te it kersa la gàcce la ci ñun ndax ñoom wax naa ko lañu war a def def nañ ko mooy teg ñu ci aw yoon xamal ñu kan mooy suñ Tuubaa ba ñuy dund sëñ Tuubaa gu wér ba koo ci gis jàpp ni ci daara tarbiya ji la tarbiyoo bu yëkkatee xasida nga bokk nit ci ña ko dàq jàng eh, sëñ Tuubaa jagle ko ci ñooña lañ bokk wala dañ koo doon ci ñoom doy na sëkk ñu nit kon liñ tombee lañ def loola bu nuy weesu loolu tamit nit ñëwaat ci ëllëg yi tamit xool ci ñun fas yéene defaat lu mel noona kon noo ngi soññi ñëpp Baay Ibrahima Thiaw Laahi mii nga xam ni eh, daaw jagleel nañ ko ci pàcc boo xam ne dañoo wax ne dañ ko ciy delloo njukkal doxe fii dem ba jàmmalaay lañ ko koy defalee sëñ Tuubaa rek moo mën a fay seigne touba rek mo meuna fay mo ne suñ xel manon na ci dem bam fi nek ñu di ko defal ñu ni xëy dafa am luñ bëgg ci mom wala dañ ko koy neexale wala xeyna mo moo na ko wax wala nàngam déedéet dafay jóge xel yépp maase àndandoo nangu ni lim waxal bopam genn ko ci làmmiñu boppam jëlale nañ ay kàddoom lo ci dégg rek bëgg seigne touba la ak darajey seigne touba ak maqamoo xam ni si suñ borom jox nako cheikhul khadim waye mu waxal bopam daal ne ñeen fukki magal màggali naa ko xamni musuma ci manki luddul ñaari magal benn bi tawat la benn bi dama am ku génn àdduna mu sës ci man bu dul loolu dama ko doon def bi mu fi jógee ñu ni nañu delloo Baay Ablaay Caw Laahi moomu jóge fii ñu yor kaamilu alxuraan jàng ko ci diggante mairie bii ñu déparé bala ñu yegg ci barab bi jàng xatmu bi defal ko addi Sëñ Tuubaa loolu bañ koy def ñun fi mu yegg ñun ñëpp xalaatuñ ko woon ku yor téléphone di xool rek gis nga ci image yu daara ji daaw ba nëgë fan yi ñëpp génnewaat ko loo xam ne dem na ba suñu kilifa di Cheikh Mamadul Muntaxa moom wax ci làmmiñu boppam ni na ngeen góorgóorluwaat bu baax a baax a baax ndax foofu ngeen ne dafa liggéey Sëriñ day na ngeen xam ni man mii ngeen koy defal ndax lu ngeen fay def maa ko waroon a def maa ngi ñaan Sëriñ Tuubaa mu leen dimbalam ak kàttanam ba nu ngeen ko ngeen am lu kawe seen jot danoo mën a am lépp loolu loolu wax ne jomb nañu sax kon nañ fedd li waa lax ku nekk làmbal sa bopp xool liggéey bi yow naka nga ciy doxee ndax moom leeral nañu ñëpp de moom Cheikh Mamadou taxaa ku nekk na xool diggam ak sëriñ bi wala diggam ak borom xool li mu sédd boppam xool li mu sédd sëriñ bi bu dee sa xel dalee alhamdulilahi rabil alamin góorgóorlu rek te yokk ko bu dee sa xel dalul nag nee na takkaatal sa laxasaay te xam nit ñaa nga lay raw kon yàlla nañ ci yàlla dolli ndimbal bu baax bu kenn xaar ku lay laaj addee ñii di la ko laaj defaluñ ko seen bopp te yaa ñoom a ci yem niñ koy defee noonu nga waroon a takke seen di géewe di ko laaj ak di message nit ak di jóg di dem boo ko defatul nag yor sa addee war koo joxe bul xaar ku la ko laaj ndax bu doon njariñul àdduna lu teew lii ñu dina ko joxante suñu biir kenn ku nekk doon nangoo xaar ba nit ñi ñëw ci yow ku ne dangay ngay woote ne gisaguma sama wàll wala da ngeen a jàpp ne bokkuma ci kon nañu nañu doolee góorgóorluwaat bu baax yàlla nañu yàlla doole ndimbal ak tawféex ba suñ ci ñu defee ko noo xam ne nu kawee kawee suñu njort lay doon ku ci ne ci ñun góorgóorluwaat bu baax a baax ci àddi jaayante yi kenn ku nekk ñun góorgóorluwaat ci bu baax a baax a baax jaayante yi moom man fi ma toog nii rek am naa ñoo xam ne moom moom dañuy jaayante ñoom du leen ni leen ndax da ngeen di jaayante man dama leen di wax ne yéen da ngeen jaayante waaw te gis naa leen te danan jaayante jaayante boo xam ne tamit xam naa ne du ko tudd waaye buñ ko buñ ko defee ba andi ko danan xam ne lu rëy rëy la waaw te te te ñaan nañ ci ci barkib Sëñ Tuubaa yi boo liggéey kenn ku ne ci ñun maanaam lan lan ko séddoo noonu ba jaayante kenn ku ne ci ñun mën koo defal boppam te yoonu kenn du ca ne nañu góorgóorlu te am jom ci daara ji ku ne ci ñun ku ci bokk laa mbooloo mi ku ci bokk ci ñun daara ji defal na la loo xam ne mënoo ko koo fay sa giirug dund taxawu nañ la ci noo xam ne mënoo koo fay daara ji sa giirug dund moo xam bis boo am la moo xam waajur wu jóge wu fi am nga moo xam ci sa doom la moo xam ci sa soxna ak leneen ak leneen lu mu mënti doon jëlale naa liggéey sëñ Tuubaa gi loolu waxuma ko suñ jëmmi bopp rek laa wax ah kon ah jom rek góor-góor rek bis bi dëgg mal na day jàll beneen ñëw day jàll beneen ñëw sëñ nag moo waxal boppam ni sama tey ju ne day gàcceel sama démb waaye sama ëllëg ju ne day gàcceel sama tey loolu mbooloo mu jóg te sëñ tax dugg nañ ci biir loolu yàlla nañu ciy doon leen dimbalul boppam te bisam bii nga xam ne moom ñun ñëpp la war ñëpp ñii di dem Gabon barki démb rek maa ngi koy wax ci daayira bi naan mbooleem ñi fay dem ñëpp maase nañ ni danañ tollu diggante boo xam ni bu buñ fa yeggee kenn du wax ñëpp dañuy taxaw di jooy ñëpp dañuy taxaw di jooy sëñ Ousseynou mii ñu ngi koy ziareef jamono yi wet yooyu la nekkoon ñoom xam nañ ci dara bu baax lan la jooy jëm xam ne bi ñu koy indi fii ak tuutaayam bi ni mu meloon maanaam bi muy wëlbatiku di ñibbisi fii rek mag ñi ku ko gis jooy waa ndax kanam geek lépp karaw gu sëq lépp nga xam ne loo ko defaree rek sax dal daf la doon jeex tàkk ñuul kuk mel melokaan woo xam ne wu jéggi dayoo la ngir lan suñu jëmm yi rek ndax ànd ak say noonu ba pare yàlla kàttanal leen def ci seen bopp ñu xam lu ñaaw ak lu lu metti loo xam ni loolu la fa seen yéene di jafe bëgg fee jëlee sa sa sa sa jëmm sagru waaye moom jom ci moom la dëppee ndax bi muy tegoo natt bi ko yonte bi salaa salaam waxee li mu ko wax lépp ci ni ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacke da ko bu ma yërëm dimbali ma daan ne ko natt bi lu mu metti metti ak lu mu diis diis diis fii ak sama ruu mi ngi sama jëmm rek am naa jom ju ko dékku noonu la def ba ku ñëw daan ni kat ragaluma kenn ku topp samay tànk musuma jaar fenn ba def fa loo xam ne bu fa sama taalibe jaaree wala buñ ko nettalee ngeen sëgg du am ba mu ko te lu ko taxoon a jóg tukki mooy ngir ñu dimbali ñu ba ñun ñu am texe ak adduna ak wàllaaxira ku ne xam na ne loolu ñun daje nañoo moom texe adduna gi leer na naññ ci ñun te texe ak ëllëg yowmal xiyaam gi kenn ku nekk ci ñun maanaam rafet njort nga ci def bu wér waaw kon nag moom moom buñ ko toppee dana gën a guddi te mën naa gën a gën a gën a nu waaye li ma bëgg a wax daal mooy ku ne ci ñun na làmb xolub bappam xool jëfam ci daara ji bu la wóoree nag toog seetaan yow moom nga ci bëgg a féetewoo toogal seetaan waaw kon nañu doole eh, feddliwaat laxasaay baax a baax a baax yàlla nañu yàlla doole ndimbal waa baax na waaw. waaw bu ko defee bureau bi eh, dinañ ci daje dajewaat eh, àllarba incha allahu rabbi fii ba balaay booba yi tamit. ñu ngi ci doon xalaat beneen dimanche buñ ci dajee waaye kayit buñ ci waxtaanee tamit daayira xidmatul xadim ci ñoomit bis biñ ci taxawal mu toll ni bisu safar gi wala mu ëpp ko ndax Touba lay doon te bis la boo xam ni du doon benn fan mën na ni bisu juróomi fan lay doon ñoom ci taxawaay boo xam ne at mu jot noonu lay demee ñoomit daanaka ginnaaw tabaski ba nëgë ni ñu ngi ci ay réunion ñuy xalaat mu xat ñoom waaye gannaaw jëwriñ yi ñun ñëpp bokk nañ ci benn fenn fu ñu tënku di fa waxtaan des na ci waxtaan ba xool noo xam ni danañ ko mën a def euh, nun ci mën a daje ba nu juboo ci ci kàddu incha allahu rabbi yaatalaat ko ci ci ci ci ci biir daara ji waaw bu ko defee nañ ne bàyyi xel daal àllarba bu jot nag ñi bokk ci bureau bi ñoom fas nañ yéeneen di daje. waaw kon nañ ci gën a bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax bokki taalibe yi kenn ku ne ñun na ci na ci gën a góorgóorlaat bu baax xam naa signal fa dinañ xoolaat. kaye beeg liste bi ñi ci jot a kii ak ñi nga xam ne moom aaja nañu soññiwaat leen tur yëpp ñu ñu xoolaat ko te jéem koo jotaat bu baax a baax a baax waa soxna yi tamit ñu jàllaleen leen seen euh, benn information ñu waxoon ne ñoom ren dañoo bëggoon ay nuróole yoo xam ne dañ koy def ci guddi gi waa ñu waxoon ne képp koo xam ni bëgg nga cee tàbbi rek mën nga jokkoo ku mel ni soxna nday Anta wala Ndey Rama bu ko defee ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax ñoom it biñ ko defee ci ziar bi jëmmal na ziar bi lool ban amoon ci ziar bi nag ñoom booba lañ wax ni moom la ñuy waajale ci mars bi fas yéene ko yegge ba ba ba jàmmalaay tout blanc bi kon dina amoon na solo lool yàlla nañ ci yàlla yeggale te te weesale ko te nu am ci lu kawe suñ jortu ci barki Seexul Xaddim xam naa sëñ Fallou ñu doon jàngkaan information yi xam naa fekkee amul lu des ñoom fi moom bu ko defee di ñaanal bu baax sëñ Ibrahima jóob mi nga xam ni moom it nega ni daaw doon na toog fii di ànd ak bokki taalibe yi liggéey bi amoon ti passif lool nag ñi daan njëkk ci safar ga ca la bokkoon ña fa daan mujj ca bokkoon liggéey bi fenn fu nekk mu am nu mu ci kii am na yun ci xalaat di ko ci wàcc maa ngi koy wax sëñ Aline mi fan yi xaw a xat rek waaye des na ko dugal ci bureau bi ñu waxtaane ko ba mu gën a yaatu ndax am na ci ab cër boo xam ne kenn defu ko ngir dañ koo bëgg rek nañ ko ko defal yëfi boppam la moo ko liggéeyal boppam ci daara ji waaw kon nañ ko fasaale bu baax ñu ngi koy fàttaliku di ko ñaanal yàlla mu wanale ko ak ku tedd ki Seexul Xaddim mi nga xam ni moom la doon liggéeyal barki Seexul Xaddim ñu ngi santaat ñëpp di jaajëfal waa ëtt yi nga xam ni moom lii miin nañ ko fi ci waxtu wum ñu soobee ak wum ñu neexee rek mag ngi fi nekk yàlla yàlla gën leen a kàttanal gën leen a dëgëral te may leen ak wér ndaw yi fi nekk ñëpp yàlla sama borom dolli leen jàmm ak wér ak xéewal yu yaatu yuñ gën a mën a liggéeyal sëriñ bi barke Seexul Xaddim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 immobilier bu ko faits, Yen, 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 Action social shopping immobilier jaay kër ce